njàng xale dëkku New York yëpp yi am ñeenti at ba ñaar fukki at ak benn mën nañu dem ci daara public ngir bokk wooteel ci 311 wala nga dem seeti https deux point slash slash www point schools point nyc point gouv slash enrôlement slash enrôlement tiré help slash family tiré welcome tiré centers mbootaay yi wekku ci askan dafay maye ay téere ay tàggat ak ay programme suqali anglais bu miin ngir mag ñi ak xale yi nekkul ca daara ja ci biir dëkk yi dëkk bi yépp dinañu jox ay tegtal mag ñi ak ndaw ñi nekkul ca daara ja te ame jafe-jafe ci wàllu jàng mbind CV wala xarañteef ci anglais programme yooyu dafay boole njàng waajal suqali anglais bi ñu miin maanaam GED ak anglais ngir ñuy jóge bitim réew te dëkk beneen te dégg beneen làkk wooteel ci 311 wala 212 639 96 ngir jot ndimbal we speak NYC dafay joxe ay njàng jàngu làkk anglais ngir ñi bëgg a jàng làkk làkku anglais aji volontaire yii dañuy jëfandikoo série télé yi siiw série télé yu siiw yi te amee raaya Emmy Award We Speak NYC ngir doxal njàng yi ak jumtukaayu jàng buy ànd ak vidéo bu nekk dana danañuy jëfandikoo itam ay jumtukaay yuy ànd ak vidéo bu nekk vidéo yii ñu ngi wekku ci taarixu woy gàddaay yuy tukki jëm dëkku New York te di joxe ay xibaar yu am solo ci wàllu mëneefu nguur gi jokkool ak bureau mairie bi yore mbiru aju gàddaay yi Mayor's Office of Immigrant Affairs ci numéro bii di 212 788 76 54 ngir xam ban mbootaay ci sa wetu dëkkuwaay mooy joxe ay jàngu We Speak NYC Cell Aid sel Aid dafay joxe aji jëfandiku yii ay leçon leçonu anglais yu ñu dul fay dara ci seen biir téléphone buy jàppandal waxtu wu nekk ci barab bu nekk jocal ci sel ede ko ci ci jollasu jotal sel edf ko ci sa jollosu téléchargeel application sel ed wala nga woote ci

learn l e point sel tiré ed point com wala ci sa ab ci sa whatsapp message start start maanaam tàmbali ci plus 1 818 423 55 33 soxla ndimbal seetaanal vidéo jàngale bu sell et fii ci website u https deux point slash slash www point youtube point com slash watch watch point d'interrogation v égale zks vx TW Q IBU